moom nag daal ni ki daal démb di yem ak fukki fan yeeg juróom-benn si weeru mi bu fekkoon ne daal mu ngi ko fekk si kaw suuf ni ko noonu nag daal eh, téeméeri atam dina nag daal di eh, mat moom ndem si yàlla si Sir Dawda Jawara nga xam ne moo fi nag njëkk a dégg turi li nga xam ne moo di prime ministre gannaaw gi sax eh, dégg na turi li nga xam ne moo di daal président moo Sir Dawda Kairaba Jawara ku am nag solo la si rek taarixu li nga xam ne moo di réew mi dinañ ko yaatal si biir xibaar yi ñoom ñi nga xam ne ñoo di soxna yeeg xale yu euh, jigéen yi euh, taxawaleen si seen wàllub li nga xam ne moo di daal euh, paj ak seen wàllub wàllub li nga xam ne wàll wàllu paj ak wàllu li nga xam ne moo di daal koppar surtout nag daal ñoom soxna wala xale yu jigéen yi nga xam ne dañ lay faral nag daal di am jafe-jafe ak feebar jooju ñu xamee si obstétrique fistalul nga xam ne daanaka si rek daal jamono yu wasin lañ ko nag daal am loolu waral na li nga xam ne daal moo di réew yi nga xam ne ñoo bokk si li nga xam ne moo di daal ECOWAS keroog nag alxames nag daal dinañ nag daal tëral li nga xam ne moo di ab programme boo xam ne dinañ ci tënku pour rek daal jàppale li nga xam ne moo di soxna yi nga xam ne ñu ngi am jafe-jafe yooyu dinañ ko yaatal si biir xibaar yi keroog àllarba si ab daje boo xam ne seqa nañ ko ak way taskatu li nga xam ne moo di daal xibaar yi ñoom bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wérgu yaram yi askan wi daal dina xam ne daal si rek daal lu bañ a yàgg dinañ nag tàmbalee daal di wër li nga xam ne moo di daal réew mi amal nag daal ay nag daal toqantal yoo xam ne dinañ ko nag daal defal yenn si li nga xam ne moo di daal ay tuut tànk yi nga xam ne daanaka dinañuy faral di jànkuwante li nga xam ne moo di daal feebaru li nga xam ne moo di saan pour rek daal toqanta dimbal jox jox leen li nga xam ne moo di ay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 nag daal euh, moo nag nekk président wala njiiti réew euh, bu réew li nga xam ne moo di daal Gambia li xam ne moo di daal ab euh, turam wala daal moom jëmmam si boppam lu am solo la si taarixu li nga xam ne moo di réew li nga xam ne moo di daal Gambia moom ki ñu xamee si Saroora Kairaba Jawara moom rek mu ngi judd fukki fan juróom benn si weeru mai si atum 1924 bu ko fi fekkoon nag daal ni ki ren téeméeri atam dina nag daal di mat moom Saroora Kairaba Jawara mu ngi juddoo si rekk dëkk dëkkaan bi ñu xamee si rek Baara Jali nekk fi ñu ne si rek daal wala fi ñu xamee woon si Makati Island Division léegi ñu xamee ko si Central River euh, Region moom Saadara Kairaba Jawara daal si rek wàllub li nga xam ne moo di daal ndawam jamono ji nga xam ne tàmbali naa daal jàng ba bu moo nag nekk li nga xam ne moo di njiitu réew bu nag daal Gambia ab nag daal njàngat la boo xam ne euh, daanaka nag dafaa waree ab nag daal bugg bi nga xam ne moom la bugg li nga xam ne moo di daal réewam si rek wàllub li nga xam ne moo di njàng mu ngi tàmbale si Methodist Boys School nekk si diwaanu Banjul gannaaw gi tamit daal dina dem yokki ab jàngam si daara jiñ xamee si Aji Mota College nekk foofu si diwaanu Ghana moom Saroda Kairaba Jawara si rek wàllub li nga xam ne moo di daal euh, duggam si rek langub li nga xam ne moo di daal politique bi mu ngi tàmbali nag bi nga xamee ne moom ak daal ak ñu ñam daal dinañ sos political party bi nga xam ne moom lañ xamee si People's Progressive Party wala PPP di parti boo xam ne nag daal dañ taxawoon temporaire daal xeexal réew mi ñu mun a am euh, independence wala daal moom suñu nag daal boppa moom ki nga xam ne moo di Saadarakar Aba Jawara bokkoon na si kilifa yi nga xam ne daal tee woon nañ li nga xam ne moo di ab ndaje boo xam ne amaloon nañ ko fi ñu xamee si rek Lancaster House nda si réewum li nga xam ne moo di daal Angleterre doon nag waxtaane euh, li nga xam ne moo aju si wàllu nag daal pour rek Gambie a nag daal di moom li nga xam ne moo di daal boppam si rek atum 1965 la Gambie daal am indépendance wala daal moom li nga xam ne moo di boppam moom sax moom lañ ndak njëkk daal di jox nombal tànk bi ñu xamee si rek daal prime ministre moom ki nga xam ne moo di Saadarakar waaye Jawara daal mu ngi dogg a dégg président si rek daal atum 1970 uh, atum 1970 ba atum 1994 daal moo jiite woon réew li nga xam ne moo di daal Gambie te jamono ji nga xam ne jiite woon na ko uh, dañ fi nag nemmeeku woon daal ak li nga xam ne moo di yokkute nguuram nag daal moom Saadora Kairaba Jawara si li nga xam ne moom lañ gënoon a jublu mooy nag lu aju si rek wàllub njàng ak wàllub li nga xam ne moo di wér-gu-yarami li nga xam ne uh, moo daal askan yi moom ki nga xam ne moo di Saadora Kairaba Jawara jamono yi li nga xam ne moo di daal nguuram daal fexe na ba li xam ne moo daal démocratie daal am si biir li nga xam ne moo di réew mi loolu ñu xamee si rule of law maanaam nag doxalin nag gu ak li nga xam ne moo di daal yoon tamit nag daal euh, amoon na si rek daal nguuram euh, fexe woon na tamit di nag daal euh, daal dox si li nga xam ne moo di daal soxlay li nga xam ne moo di daal askan wi si rek atum 1966 nag moom Saaraba Kairaba Jawara si at moomu nag lako ki nga xam ne moom lañ xamee si Queen Elizabeth daal di nag daal jox nag ab rak raaya ràññee ab taxawaayam si li nga xam ne moo di daal réew mi moom Saadara Kairaba euh, Jawara daal ni ki démba si rek alxames gi yema ko ki fan yeeg juróom-benn euh, si weeru mai bu fekkoon nag daal mu ngi woon ba léegi si kaw suuf suuf kon euh, li nga xam ne moo di ay téeméeri atam nag daal si la koy nag daal di matal ba tax li nga xam ne moo di nag daal demam bi taxut nag daal askan wi daal di ko fàtte daanaka nag daal askan wi yëpp nag daal seen xel ak seen xol mu ngi si nag daal moom dem si yàlla si Saadara Kairaba woon na tem pour gis ne réew mi am na démocratie am na li nga xam ne moo di jàmm ak li nga xam ne moo di daal euh, nag euh, yokkute moom ki nga xam ne moo di Saaraba Karaba Jawara nga xam ne bokkoon na si ñi nga xam ne ñoo taxaw temp réewu Gambie am li nga xam ne moo di daal independence li nga xam ne moo di ab turam ak daal ab jalooreem nag daal kenn du ko mën a daal génnee si rek nga xam ne moo di réew mi ñu di ko ñaanal moom aji bi di Saaraba Karaba Jawara yal na ko suñu borom yërëm ak bépp aji jiitu si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar soxna yeeg xale yu jigéen yi taxawu leen si seen wàllub nag daal pàcc ak seen uh, wàllu uh, wàllu nag daal doole leen si rek wàllub li nga xam ne moo di koppar surtout nag daal soxna ak xale jigéen yi nga xam ne dañuy am jafe-jafe xam ne feebar ji nga xam ne uh, moom nag lañ xamee si obstetric fistula nag daal ñoom soxna yi ko dee amul yi nag ab feebar boo xam ne daanaka si rek daal jamono yi wasin la leen dee nag daal faral di daal waral na ñi nga xam ne ñoo di mbootaay bi ñu xamee rek daal si rek daal ECOWAS nag tëral nañ ab programme boo xam ne dañooy jàppale nga soxna yi nga xam ne ñu ngi soxna yi li nga xam ne moo di xeetu feebar bu ba na keroog alxames nag daal daal dinañ euh, euh, yi nga xam ne ñu amee feebar bi ñu xamee si obstétrique fistula euh, si la leen dee faral nag daal di nag daal ba na li nga xam ne moo di taxawaay bi moo rek pour rek doole leen si rek wàllub faj doole leen tamit si wàllub li nga xam ne moo daal koppar si li nga xam ne moo di ndaje bi nga xam ne ñi ngi dalloo programme boobu ki ñu xamee si daal eh, li nga xam ne moo di nag daal mbir mi nag ñëpp nag daal ñoo si war a sóob seen nag loxo ñu nag taxaw soxna yi xale jigéen li nga xam ne ñi ngi jànkuwanteel feebar ji boobu ñu xamee si obstetric eh, eh, fistula ba ñu sukkandekoo si rek daal ay kàddoom Fatou Kinte nga xam ne moom mooy Gambia's Minister of Gender Children and Social Welfare moom nag wax ne li nga xam ne moo programme boobu nga xam ne moom lañ doon dalloo nga xam ne ab programme la joo xam ne ECOWAS euh, commission nag daal ñoo si sóob li nga xam ne moo di daal euh, seen nag daal loxo mu nag daal di wax ne daanaka li nga xam ne moo di koppar gi nga xam ne moom la ñu war a dugal si nag programme boobu nag daal toll la c'est daal ñaari téeméer ñeneen fukk ak ñeneen ti junne si koppari US dollars di koppari réew li nga xam ne moo di Amérique euh, buñ ko wéccee woon si koppari dalasi si dina war a si rek fukk ak juróom benn million si koppari li nga xam ne moo di dalasi li nga xam ne moo du juróom benn weer lañ ko war a jëfandikoo bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di kàddoom koppar gi nag dañ koy jàppale soxna xale jigéen ñi nga xam ne ñi ngi amee li nga xam ne moo di xeetu li nga xam ne moo di feebar jooju ñu xamee si obstetric euh, fistula bu si rek li nga xam ne moo di kàddoom Babanding Sabali deputy permanent secretary technical ministry of health moom mi nag yëkkati na fa daal kàddu daal wax ne li nga xam ne moo di feebar jooju ñu xamee si rek daal obstetric fistula ab feebar la joo xam ne yàgg naa daal li nga xam ne moo di soxna yi euh, dañ si nag jubluwu toon rek euh, ba tane daal am na loraange gu bëri ngoo xam ne indil na ko ñi nga xam ne ñoom la dee nag daal di daal mu ne daal euh, jot na ñu taxaw ñi nga xam ne ñooy loru si li nga xam ne moo di daal euh, feebar jooju noonu si li nga xam ne moo di ab xayma nemmeeku nañ ne lu ëpp si benn million si ay soxna ak ay xelu yu jigéen euh, dëkk si rek dëkk yi bokk si rek daal ECOWAS nag daal ñu ngi jànkuwante li nga xam ne moo di daal euh, feebar jiite nag daal ñaareel li waral ñu si di gën a loru mooy nag ñàkk pàcc ak tamit li nga xam ne ñàkk koppar Halimatu du Jawara Uh, permanent secretary office of the first lady ak Ndeye Tabara Touré director of regional integration uh, ministry of trade ñoom ñaar ñi ñëpp nag daal wax nañ solo si nga xam ne nag daal mbir mi nag daal dina ko am mu nag daal di wax ne li nga xam ne moo di bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wérgu yaram li nga xam ne moo di daal askan week ñëpp ñoo xam ne ñooy yëngu si rek wàllu paj nag daal mbir mi nag daal dañ ci war a nag saf sàpp nag daal sóob si léeg li nga xam ne moo di daal seen nag loxo bu ñu sukkandikoo si ay kàddu ci beneen li nga xam ne moo di xibaar ci ab daje boo xam ne siqa nañ ko ak way taskatu xibaar yi keroog àllarba ñoom bunte bi nga xam ne ñoom lañ den dénk wérgu yaram askan wi di rek ministry of health xamal ne xam xamle nañ daal si rek daal lu bañ a yàgg daal dina am nag ab yëngu-yëngu boo xam dinañ ko amal wër réew mi nag pour rek amal ay toqantal yoo xam ne dinañ ko toqal eh, yenn eh, si li nga xam ne moo di daal ay nag daal tout tànk pour rek mun leen a muccal ci li nga xam ne moo di daal feebaru li nga xam ne moo di saan diñ xamee si cisto mo mia siis lii nag daal ab mbir la moo xam ne daal daanaka si rek na na wax nañu lu bañ yàgga dinañ ko def nag pour daal muccal li nga xam ne moo di tout tànk si rek wàllu li nga xam ne moo di li nga xam ne moo di saan bett na si ndaje moomu nga xam ne ñu ngi ko doon siq ak way taskatu xibaar yi Balla Diatta nga xam ne moom mu ngi yore nombal tànk bi ñu xamee si Neglected Tropical Disease Programme Manager daal dina wante daal li nga xam ne moo di wëraala ji nga xam ne dañ daal réew mi daanaka li nga xam ne moo xale yi nga xam ne ñooy nag aajo nag am toqantal bi mooy nag daal xale yi nga xam ne daanaka nag daal euh, tollooguñ si rek daal njàng mu di xale yi nga xam ne daanaka nag daal euh, seeni ay at nag daal dafa dem ba si ñaari at jàpp sax li nga xam ne moo di daal ñeneenti rek daal at wala sax daal fukki weer daal benn mu nag wax ne tamit tamit euh, yeneen xale yi yoo xam ne tamit nañu am toqantal bi mooy nag yi nga xam ne am nañ juróomi at nag daal jàpp li nga xam ne dina war a am na sax yenn si ay mag yoo xam ne dinañ nag aajo am li nga xam ne moo di daal toqantal bi docteur Pius euh, nga xam ne moom moo yore nombal tànk bi ñu xamee si African Center for Disease Control and Prevention and and the National Coordinator for the Gambia euh, docteur euh, Ifede Udenze ñoom ñi ñëpp nag daal daal dinañ wax daal li nga xam ne moo di nag daal nak mbir mi solo si nga xam ne daal dina ko am nag daal fexe nag daal ñu moytandikul li nga xam ne moo di askan surtout tànk li nga xam ne moo feebaru li nga xam ne moo di daal saan Amadou Wuri Diallo nga xam ne moom moo yore nomba tànk bi ñu xamee si coordinator of the epidemiology and disease control programme euh, foofu si ministry of health mu nag daal di wax ne mu ngi sàkku si li nga xam ne moo di way jur yeeg ñi nga xam ne nag ñooy yore xale yi ne daal ngel nag euh, nañ fexe euh, bu nag ñëwee si seen i ay kër wala seen i ay dëkkuwaay nañ jàppalante ak ñoom fexe xale yi nag daal ñu mun leen a nag daal di toqantal surtout xale yi nga xam ne ñëw aajo am li nga xam ne moo di toqantal toqantal boobu noonu bu ñu sukkandikoo si seen yi nga xam ne moo ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di xibaar mbootaay bi ñu xamee si Gambia Press Union di mbootaay bi nga xam ne moo ëmb uh, way uh, taskatu li nga xam ne moo di daal xibaar yi lëkkalu ak beneen mbootaay bi ñu xamee si International IDEA uh, jàppalante si tamit ak mbootaay tugal gi ñu xamee si rek European Union ñoom nag tàmbali nañ keroog alxames ñaari fanu ndaje tàggatu goo xam ne dañoo tàggat ñi nga xam ne daal ñoo di ay managers ak ñi nga xam tamit ay editors lañ nekk si li nga xam ne moo di bunti tasukaay li nga xam ne moo di daal xibaar yi Guinée nag daal euh, ubbi seen xel si daal naka la ñu war a gi joxe jox Guinée jox gëdda li nga xam ne moo di nag daal soxna yi nga xam ne ay nag way taskatu nag daal xibaar lañ li nga xam ne moo di tàggatu yi nag keroog alxames lañ ko nag daal di euh, euh, daal tàmbali ay ab tàggatu la joo xam ne daanaka ñi nga xam ne ñoo ko sooke wala ñi ko sabab mooy ki nga xamee si docteur Satan Nabani ak ki nga xamee si Fatou Diagne nga xam ne ñoom ñi ñëpp nag daal dañ leen ràññee si rek daal wàllu taxaw xeexal li nga xam ne moo di soxna yi seen ak seen yelleef si nag daal ubbi jiite euh, nag euh, ñaari fanu tàggatu gi euh, ki nga xam si Mohamed S nga xam ne moom mooy président wala moo yilif Gambia Press Union moom nag daal dina wane daal am na yaakaar ne nag li nga xam ne moom lañ nag daal di tàmbali dina tax nag daal wala dina gën a may fit li nga xam ne moo di soxna yi nga xam ne ay nak taskatu xibaar lañ fexe ñu gën a mun a yoo yóotu li nga xam ne moo di daal nombal tank yu gën a kawe si rek daal bunti tasukaay li nga xam ne moo di daal xibaar yi si nag ndaje moomu ki nga xam si rek daal Dieynaba Faye nga xam ne moo yore nombal tànk bi ñu xamee si country office international idea moom nag daal dina wane daal am na yaakaar ne nag soxna yi nag daal dañ leen war a a jox seen gëdd si rek daal bunti tasukaay li nga xam ne moo di daal xibaar yi daal dina wane euh, bépp nag daal euh, liggéeyukaay boo xam ne nag daal góor ak jigéen nag fa dañ leen fa war a daal di nag yemale gannaaw bi nga xam ne moom dafa nag jàppane yemale góor ak jigéen si rek ne moo di liggéeyukaay yi euh, du rek daal lu war a ne daal lu war a am la bu ñu sukkandiku si ay kàddum Raphaël euh, Brigandi nga xam ne moom chargé des affaires la si EU office euh, bi nekk fii si biir réew Gambie moom nag wax daal euh, ñoom européen yi di rek mbootaay tugal googu nag daal lu aju si rek wàllum nag daal tasam xibaar ñu gën koo yaatal lu leen nag daal soxal la ba tey daal aajo na ñu nag yemale góor ñeeg jigéen ñi si rek daal bunti tasukaay li nga xam ne moo di daal xibaar yi mu nag daal di jàppane li nga xam ne ndaje yi nga xam ne moom la amal dafa a bunti tasukaay xibaar yi euh, ñoom ñi nga xam ne nag euh, ñoom lañ doon tàggat euh, bokk na si ki ne si Ousmane A Marong nga xam ne moom manager la si rek ñoomi FM moom nag wax na ne li moo nag wax daal mooy soxna yi seen boppa ñoomi ne daal ñoo xam ne daal lu góor mun jigéen nag daal mun ko daal ñoom jigéen ñi ñoo war a seen boppa wone daal ne daal ñoom it am na am nañ xarañteef bi nga xam ne seen moroomi goor yi daal dinañ ko nag daal am mu nag daal di am yaakaar daal soxna yi dinañ gën a daal di fésal seen boppa gën a gëm seen boppa sali Waly Diadio nga xam ne moom euh, mu ngi euh, liggéey euh, fi ñu xamee si GRTS moom nag daal dina wane nag li nga xam ne moo di jigéen ñi seen bopp nag daal waru ñoo des gannaaw fi mu nekk ni surtout nag ñoom ñi nga xam ne euh, daal ñoom it si nag daal fi nga xam ne fa la ñoo joxee li nga xam moo di daal euh, dogal yi bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di daal kàddoom mu nag daal di wax ne daal daanaka euh, liñ mun a jàpp daal mooy soxna yi seen bopp ñoom it at mu nekk nag daal ñoom it nag daal ñu ngee nag daal jeexal seen ab njàng si rek daal bunti tasukaay si rek daara yu kawe yi nga xam ne ñu ngi fay tàggat li nga xam ne moo di way taskatu xibaar man lii dafa ñi jigéen ñi mën nañ ko benn xarañteef bi daal ñoom it daal am nañ ko si ndaje moomu tamit Abdoulaye Diawo nga xam ne sax moom euh, nag mu ngi bokk fi ñu xamee si Gambia Press Union moom nag wane ne rafetlu na euh, euh, tàggatu bi dañ ko indi si li nga xam ne moo di daal jamonoom te am na yaakaar ne ñi nga xam ne teewee nañ ñaari fanu tàggatu gi daal dina am lu bari loo xam ne nañ ko fa jëlee si rek wàllub njëriñ si rek daal xibaar nag daal gu mujj bi euh, programme wala projet bi nga xam ne moom lañ duppee di project implementation unit nekk si rek RON Ministry of Tourism and euh, Culture ñoom ak daal seeni ay anandoor keroog àllarba euh, daal dinañ nag daal jëmal li nga xam ne moo di ab caytu boo xam ne ñu ngi ko doon nag daal di amal lu aju si rek nag daal daal di tànn li nga xam ne moo di ay béréb yoo xam ne ñu leen war a nag daal di gën a daal di koweel su ko defee nag daal ñi nga xam ne ñoo di gan yi nga xam ne ñoo jógee ko si réewu tugal yi nag mun di ñëw si li nga xam ne moo di béréb yooyu gannaaw bi nga xam ne nemmeeku nañu fii si biir réewu Gambie lu aju ci rek wàllu daanaka nag daal dinay dugal lu bëree bëri si rek daal koom-koom yi réew mi bu fekkee ne téeméer la ñaar fukk yi euh, nag mu ngi jugee ko si li nga xam ne moo di daal tourisme si seen nag ndaje mi Modou Cissé nga xam ne moom mooy project director tourism diversification and resilience in the Gambian in the Gambia project moom nag daal dina wane li nga xam ne moom nag lañ jëmal seen ab caytu bi nga xam ne ñu ngi ko doon nag daal di amal ab nag daal mbir la nag daal mu am solo la boo xam ne a daal mbirum nag daal tourisme euh, fii si biir réew li nga xam ne moo di daal euh, euh, Gambia si ndaje moomu tamit docteur Adama Ba nga xam ne moom nag tamit yëkkati na fa daal kàddu daal wax ne daal ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ sasoon pour daal ñu tànn béréb yi nga xam ne daal nag daal war nañ koo tànn gën a gëd jox gëdda li nga xam ne moo di béréb yooyu ne daal mbir métti woon na gannaaw bi nga xam ne lu toll woon c'est daal juróom benn fukk ak ñeneenti béréb nag daal ñu war a tànn fukka si béréb yooyu ne daal loolu lu jafe woon la waaye nag daal tànn nañ yi nga xam ne jàpp nañ daal lu gën a mun a indi koom la si biir li nga xam ne eh, moo di daal réew mi Aïssatou Dramé deputy permanent secretary ministry of tourism and culture ak Keba Njie eh, executive director bu travel and tourism association of the Gambia ñoom ñi ñëpp nag daal rafetlu nañ eh, taxawaayu li nga xam ne moo di bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu gan ñi nga xam ne ñu ngi jógee ko biti réew Dr Simon Wood Wan nga xam ne moom nag tamit yëkkati na fa daal kaddu daal tax daal di wane li nga xam ne moo di nag daal ceytu yi nga xam ne amal nañ ko ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ sasoon li nga xam ne moo di liggéey gi euh, mu di daal ay béréb nag yoo xam ne daal lañ tànn daal ne daal béréb yi ñu gën a war a daal jox gédd la pour rek daal ñu gis ne gan yi nga xam ne ñu ngi jógee koo tugal nag bu ñëwee si réew mi dinañ nag mun di nag daal nemmeeku li nga xam ne moo di béréb yi mu gën a mun a indil réew mi li nga xam ne moo di daal euh, koom-koom